salaamaaleykum wa rahmatulah madame la ministre maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokk honorable député yi di tàmbalee ci nuyu bi ak char bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal kilifa di nii ci réew mi yépp tey nag da fay ñëw indi fi projet de loi bu am solo te Sénégal yi ñuy seetaan tamit bëgg nañoo xam lan moo ci position Pastef ak lan moo ci position député Pastef yi jàpp naa ne ñu ko honorable député fi jaar yëpp waxee leer na Sénégal yëpp mooy Pastef demandé wul dara te li bëy daan dunde ba sax sikkim bu ca continuer mën na ko yor ba muy faatu loolu nag ñu dégg wolof xam nañ ko yàlla suturaal nañu ba liñ dund 2021 ba léegi amul benn Sénégalais bu ump te bi mu fi mujjee ñëw question bi ma la posé woon mooy suñu mbokk détenu yi nga xamante ni ay détenu politique la ñu jàpp leen tëj leen foofu ci njaareem bi may répondre danga ne woon ay détenu politique amul Sénégal te jàpp naa ne it loolu looy woy di wax la ba léegi waaye Sénégal gis nañ fan yii yëpp libération bi ñu fi bëri ak ku ci nekk bi nga génnee li nga wax mooy wax sénégalais yére ne bi yàlla suturaalee 2021 ba léegi ay manifestation politique di am ay nit di faatu depuis boobu ba léegi Pastef moo mas a taxaw ci côté famille famille détenu di taxaw ci famille victime yi kenn fekku leen ci kon su ma gisee ay nit taxaw fii mel ne dañoo bëgg a nekk avocat détenu yi wala dañoo bëgg a nekk avocat victime yi man ay ree daf may jàppal damay am kerse ndax amul benn parti politique bu nekk Sénégal boo xamante ni xam nga benn famille victime politique fu mu dëkk Sénégal ku dul Pastef benn parti politique Sénégal boo xamante ni xam nga benn famille ñoo xam ne dañ leen a rey ci manifestation yi ku dul kon ñun li ñu dund kenn fekkuñu ci te ni ko honorable la jàll waxee léegi moo ci nekk yàlla suturaal nañu ñun au niveau département Mbacké amoon nañ soixante dix huit prisonniers politiques weer wu dee ñu ngi doon dépensé huit cent cinquante mille francs te kenn fekku ci Pastef ñoo ko doon yor ñi faatu ci manifestation yi bu doon ñaar fukk lañ juróom ñaar fukk lañ quinze yëpp Touba lañ leen denc ku ci nekk bi ñu lay denc fekk naa sa rob dégg naa famille yi li ñu wax kon yàlla suturaal nañu li ñu dund ñun ñoo gën a placé wu pour wax ñëpp ñun ñi ay victime lañ ndax bu mbokk mu faatu mbokkum deret am nañ ko ci bu dee ay détenus politique lañ ba léegi nii am na ay san rakk ak ñoo xamante ba léegi ñu ci kaso bi te génnaguñ kon li ñuy dund ñun xam nañ ko position yi Pastef mosu koo jël di dugg ci ay ronal buy jël position publiquement la koy jël te soxlawul kenn dimbali ko ci da koy jël mu wéet ak mu naqare kon jàpp naa ne question bi nga xamante ni moom la la doyen Omar Sy posé ñun question boobu lañ am ci bu ñu lay posé mooy ndax ñi nga xamante ni ñoo génn di manifesté wu te constitution Sénégal wax ne comme neex am nga droit manifesté loolu la neex ndax ñi leen rey dañoo bokk loi ak torture loolu bu leeree suñu bopp ñun Pastef dinañ jël suñu position te duñ ko nëbb duñ ko làq dañ ko jël publiquement sénégalais yi xam ne lii mooy position Pastef wasalaamaaleykum wa rahmatullah